Mhm. xoolal lu bon li gars di def ci cimetière yi ndegam yi àdduna jar pour di ko def xoolal ne ba ci néew bi nii di def yu bon yi xoolal te yére xale yu ndaw yi xam ne xamuñu dara boole ko xaatim bi daal di koy def Binta Sadio Konaté mooy mooy yaay moom la jël boole koog lii Eh, eh, mm, eh, boole koog ndaw si nga xam ne xam naa ne mooy doomu ma ma kii ni Binta Saye Konaté moo ko jur. Salma Gueye Salma Gueye. Gueye Gueye Salma Gueye mii nga xam ne moom lañ jël xaatim nii waaw moom lañ def xaatim bu bon bii daal di koy dugal ci li nga xam ne day naan sàngara xol bi day dee ni kii tëdd en plus day njaaloo di mooy. waaw sëriñ si lii ñuy def mbaa jar na ko wala lii jar na ko ah sëriñ si ñuy fay xaalis ñuy jël di def yu bon yi pour yàq nit pour lan xale yu ndax yi nga xam ne xamuñu dara xale yi nga xam ne nii xamuñu dara nga jël seen yére boole ko xaatim bi suul ko ci cimetière yi ñoo fekk ñi xam ne fii ñu tëdd di noppalu nga ñëw def leen nii li àdduna jar na lii ah liggéey yu bon yi fois ngi nii may dindi liggéey nii ci armée yi nii deux fois beneen bi fële la woon jour màggal Touba tey ñu jëlaat beneen daal di defaat nii beneen ah gars ñi xalaatuñu ne ëllëg dinañ taseeg sunu borom xolal wala gars yi dañoo xam ne xalaatu ne ëllëg dinañ taseeg sunu borom ah Binta Sadio Konaté mooy mooy yaay. ah boole ko nii doomam bu jigéen nii. dem xam ne fi ko fi nga ko fii nii fii nii la jigéen nii ci bopp néew bi fii nañ ko dindee fii nañ ko dindee ndegam lii rafet na wala àdduna jar na lii li xam ne ñun ñëpp dañ leen leen fekk ji ëllëg yàlla na yéex sëriñ siy def lii nañ ko bàyyi en plus euh, euh, ñiy dem di def lii nit. pour mu yàqule nañ ko bàyyi jàpp ndey ak doom rek di liggéey rek nii ba kañ ba kañ ah gaa ñi nee leen ñu ñu ñu bàyyi lii sëriñ si def lii nañ ko bàyyi te billaahi wallaahi tàllaahi ëllëg dinañ leen fekk mu yéex mu gaaw mu kenn xamul kañ la ak fan la ak naka la kon sëriñ si ñuy fay xaalis ñuy def yu bon yi nañ ko bàyyi tax nañu yàq nañu deru sëriñ ba kenn ki nga xam ne mënut ñëw mëntu ñëw wóolu kenn wala di gëm kenn. ah Mamadou. moom rafet baaxul. ah. wallaay li baaxul. jàpp nii def ko nii xaatim bu bon bii ñëw dóor ko nii ci biir fii. problème fi mu jógee ci biir kàmb gi. fii laa jógee fii ci laa ko. fii laa génnee ko génnee fii. ah. bi nii ñu dem ñu dem def ko nii ah xaatim ko xaatim bu bon bi boole ko yaayam. gaa ñi nañu ragal yàlla nañu ragal yàlla nga xam ne ëllëg am na. ah ragal yàlla xam ne ëllëg am na ki nar a def lu bon na ko def lu baax yokkee ko sa bopp moo gën ngay def lu bon ku nar a def lu bon na ko yokkee lu baax yokk sa yaram moo gën ngay def lu bon waaye bul xool nit ba ñeeku wala dem ba nga xam ne nit ki neexatu la ngay jëm ci sëriñ di ko yóbbu xale yu ndaw yi ñii xam nañu dara ñii ñii nga jël seen yére boole ko ci xaatim bi ñii ñii xam nañu dara ñii xamuñu dara ñii xamuñu dara ku ci bàyyi